Still, Vitalis, by Sivop. Destination Sénégal, agence sénégalaise de promotion touristique. Est-ce que duma la def sax sama assistante. <laughs> mën na nekk. <laughs> Marichou de bu amee fi taxaw fii di la gëdd di la laaj kan mooy papam baadoola moo la fi nga ko féetee man sax meloo noonu ak man te loolu pot xam na ko xanaa moom bu ko rewee suba doom ji yow la koy tuddee. suba daal pour ngénte bi jarul nga inquiété wu géré nañ lépp. yow daal na nga ñëw solu toog rek. ay yow ku leen bàyyi ngeen di sonal seen bopp. dégg ko maa ngi dellu. récupéré nga sa jabar récupéré nga sa doom man sama jëkkër des fa nga ne yéeyaay dangay woote ngénte